94 yóbbalu suba teel yóbbalu suba teel ñëw ci xale bi nga xam ne ni mi ngi ci digg tali bi yor photo Ousmane Sonko bu mag nee na nag moom dafa bëgg ñu bàyyi Ousmane Sonko wala foofu oto fekk ko fi mu xaru mu nekk loo xam ne ni lu doy waar la. gis ngeen ko noonu ñu ngi koy yëkkati lu ne ñu ko koy wax waaye dara mi ngi toog ci digg tali bi daal yor photo Ousmane Sonko ni nu bàyyi Ousmane Sonko wala mu xaru ndax oto bi oto yi mën nañoo jaar ci kawam dañ koy teggi dara jotu ko nag xanaa kay Ousmane la bëgg rek waaye xam naa ni kenn ku nekk nag na ngay toll ci nit rek loolu daal nekk na li nga xam ne ni mooy euh, euh, yóbbulu suba teel 94 yóbbulu suba teel di leen ko kal fii ci 94 yóbbulu suba teel nuyu na leen jaajëfal na leen bu baax a baax a baax a baax xam naa ne nag euh, dinañ ñëw euh, incha allah tey ci ay résumé ci sport bi ak euh, lu jëm ci wàllu xew ci bi